Assalamu alaikum. mbokk internet yu Saint-Louis TV ñu ngi amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloog yéen fii télé Saint-Louis TV tey nag ñu ngi génn euh, ku ne xam na ni ñu ngi jëm ci bés bu am solo muy le 13 janvier moo tax ñu ñëw fii nga xamante ni mooy avenue général de Gaulle xool ñi nga xam ne mooy population saint bi nan la ñuy préparé combat bi ñi nga xam ne ñooy fans Balla Gaye yi ak ñun ñooy fans Modou Lo yi ñuy wax ci combat bi ak nan la ñuy préparé seen bër ak ban conseil la ñuy jox seen bër ci biir làmb jooju noonu moo tax tey jii nag ñu ngi nii ci biir terrain bi ma ànd ak sama caméraman ki nga xamante ni mooy Mandiaye ñu dugg ci biir maket bi xool gars yi noonu la demee daal sama gars yi léegi léegi rek ñu dem te ñëw aw papa ñu ngi lay nuyu. ah ma ngi di fay. papa ñu gis ni ñu ngi jëm ci bis bu reuy muy le 13 janvier moy lamb bu bu reuy bo xam ne Sénégal yëpp xaar ci digënté modlo ak Balla papa tay ji no gisé ñaari mbeuri waaw lamb ji na ma may fatali bis yu reuy rëy fu ma son am ma may fai, diggante bu Dior ak Manga ma ngi may fatali digënté Moustapha gay ak docteur fay ma may fatali digënté Moustapha gay ak mam njamban loolu la ma bis bi di fàttali sama xel yëpp dem na ci làmbi démb waaw ndax làmb ji fi mu toll dimension bi wax dëgg yàlla yóbbu na ma ci làmbi démb waaw. waaw papa boo gisee euh, ampleur bi làmb ji am préparation médiatique bi nga xamante ne làmb ji am na ko yow tey noo ko jàngatee ak par rapport ak làmb démb. waaw làmb moo toll tey jii foofu ñu yóbbu ko ci modernisation ndax làmb fi ko yóbbu tey làmb bu dem bay fay ay millions ñu ci def presque euh, genn wàllu milliard kon làmb yoon la mu agsi fii tey am na wuute ak làmb démb ndax boo demee ci aspect technique li làmb dem meloon démb ak làmb nu mel tey bokkul mais tey yoon la làmb parce que bu ñu ci defee lu genn wàllu milliard c'est normal que tey ji làmb wuute ak làmb démb waaw waaw. waaw jërëjëf papa kàddu yi rafet na ñu ngi lay ndokkeel di la gërëm di la sant waaw ñu ngi leen di sant bu baax baax yal na yàlla ci bis beeg eh, euh, ñu def ko ci fair play ndax xam ne làmb moom rek la dul ndax fii bis bii wax naa leen bis bu am na fi bis bu ne gis nañu fi euh, Mbaye Gueye Robert gis nañu Moustapha Gueye Mame Ndiambane gis nañu fi Touba Badior euh, Double Less lu ne gis nañu ko fii nañu xam ne làmb la rek ku yàlla jox victoire itam ñu xam ne kook la yàlla jox victoire jërë ngeen jëf jërëjëf papa waaw salaamaaleykum góor gi ñu ngi lay nuyu moo ngi lay fay wa ñu ngi gis ni ñu ngi jëm ci bés bu bés bu am solo ci walu lamb manam le 13 janvier seetaan nga li mo open presi sa seetaan nga face à face no gisé ñaari mbeuri wa waaw man de mbër moom daanaka suma suma bëgg-bëgg la ndax ñooñu di bëre nonu ku melni ni les wala muy ñëw fi fekk na may setan lamb ñom fan laay balte waye suma doon jox favori man. Ah, kii laay jox favori Balla Gaye waaw. lu waral loolu lu tax nga ni boo doon jox favori tey Balla Gaye ngay jox favori. Ah, dama xool dama xool ba yaakaar ne su ma doon jox favori wala may teg ci Balla Gaye laay teg parce que moom laa la ma laa jox favori. ah papa bu ñu xoolee bu ñu xoolee face à yi gis open press yi gis nañ Modou Lo ñeme na trop trop trop trop Balla Gaye te nee nañu aussi. Balla Gaye Modou bi mu daanoon 2010 ak Modou bi bii diggante bi am na différence bu bëree bëree bari bëri. waaw kay ñeme boobu nag ci laay jóggi ma yaakaar ne dëgg-dëgg Balla laa war a jox fabari waaw parce que Modou xam na ne su ñemee Balla Gaye tamit Balla Gaye mbër la bu jarul ñeme waaw. kon daal yow foofu nga ko teg. waaw papa ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup jërëjëf papa. sama gars yi comme ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngi nii ci biir blague yi man ànd feek ñaar ñi nga xamante ne kenn kii nga xamante ne moo nekk sama gauche supporteru Balla la kii nga xamante ne moo nekk sama droite supporteru Modou Lo la léegi sama gars yi ma leen laaj si laaj njëkk commencé noo gisee sa mbër yow. ah ñun daf nañu lu ñu war a dafa pare pare daf nañu euh, euh, INSEP hmm. préparé nañ suñu combat. Hmm. trois mois lañ def génn ñu UNICEF trois mois comme ku nekk bango déjà ñun pare nañu Modou Lo wax ji moo bare nii rek Balla Gaye waxoon nag ko nee na nga Modou Lo yow yaa ma yëpp mais yow say say supporter sa di mooy say euh, supporter ñoo ma yëpp mais yow yaboo ma nest boo xoolee ñoom ñaa seen palmarès bokkul Balla Gaye lu mu def si làmb ji Modou Lo def ko Balla Gaye boo xoolee adversaire yu mu am si làmb ji boo xamee boo xoolee adversaire yu mu am si làmb ji Modou Lo amul amul adversaire yooyu noonu à part Eumeu Sène mënoo fi génne beneen adversaire bu bu danger si si si palmarès kon Modou Lo wax ji moo fi nekk nii rek ñii naan Balla amul doole Balla Gaye am na doole mais jour combat bi ngeen di gis lépp incha allah wóor na yàlla. kon yow instant bi bu ñu doon wax yow bu ñu doon wax 1-1 wala 2 la wax yow. man instant nii. billahi wallahi dama am confiance dama dama jàpp ne 2-0 lañ lañ lañ. foo teg 2-0 yow. man bëre Balla Gaye entraînement am lu lu mu ñu wan ah, ah ak mais yow li ma jaaxal mooy ki nga xamante ne moo jommal balagay Gaye muy Eumeu Sène mi daan moom mi daan Balla Gaye ñaari yoon Modou Lo ko daan waaw mais loolu d' accord parce que bête noire dafa am si làmb ji bête noire dafa am si làmb ji Eumeu Sène d' accord suñu benn noire la yaa ngi d' accord mais boo xoolee boo xoolee suñu combat Balla Gaye ko euh, boo xoolee combat Balla Gaye xool combat Modou Lo bokkul Modou Lo boo xoolee combat mi bëre bu la jiitoo ci xeex ba am ba avertissement am dootul bëreeti day taxaw téye xeex bi ñun du ñu bëree noonu benn combat yi am muy match nul contre Gris Bordeaux boo ko xoolee suñu palmarès lépp a rafet kon yow tey bu ñu doon joxee bee passé daan naka ci vingt et kon bii ñaari secondes la ko war a mën a daan bu bëggee dama koy daan bu xeexee dama koy daan bu bëree ñu déglu ki nga xamante ne mooy fan su Modou Lô bi yow wax yow loo gisee sa mbër yow kii wax wax lañ wax lañ ñoom wax lañ ci am hmm. yàgg instant yi 1-1 lay doon incha allahu taala Balla Gaye instant yéen nii xool wax jëf waaye dara ndokkutu dara ndokkutu fa. yow dégg yow na ñu ni Balla ci ci gémmi na mu ni yéen yéen nga xam ne yéenay fan su Modou Lo yéen yéen a yeb Balla waaye Modou si boppam seen mbër yebul Balla yow lay wax si day soob rek Balla soob Balla xam na kuy Modou Lo Balla day soob Balla xam yàlla xam na Balla Papa waaye ba suur combat ba dañu xam ku kii pap ak ku ne ko bëgg du dara Modou Lo da koy daan incha allah taala leer laa la wax. waaw yow loo wax yow kaay nii. man man bi maa wax leen waa waa waa Saint-Louis TV maa ngi sant maa ngi gërëm man Modou Lo mooy sama may mbër wala lépp dina leer bis bis bis bis euh, lamb ji lépp dina leer lu nekk si bool loxo dina gis xam ku mun lépp xam na Modou Lo mooy mooy waa ji waaw waaw. door yow dóor mu daanu la wala wala dangay jàpp daan wala loo gis yow. man lam la gis. lamb ji am na lu laa bëgg lamb ji na tey ànd ak ak daal ndax nit ki du doole mooy bër xel mooy bër ndax Modou Lo xam na su tey Balla Gaye Balla Gaye dina dina daan suuf xam nga lépp dina leer. wallaahi waa jërëjëf ñu ngi char. waa delloo char waa delloo waa gis nga de ñu ngi ñu ngi ci waa ñu ngi ci waajtaay yi nga xamante ne mooy le 13 janvier bu ñu nee le 13 janvier sa xel ci la lay dem. ci victoire Modou Lo rek. ci victoire Modou Lo. su ma leneen loolu victoire di. yaa ma gën a xam bàyyi ah. affaire du yomb bàyyi ah. deux heures mënul ne bàyyi. Ah. non non kooku duñ ko nangu bàyyi. mais Balla nee na yéen yéen yéen ñi supporté Modou Lo yéen a koy ko. loolu wax rek ñun xam na ni mu koy njëkk jël boobu dafa ndawoon rek nekk benn booy bu ndaw mu ëpp ko doole trop hmm. mais léegi xale bee màgg. ah Balla nee na ndox du bàyyi de non Balla dafa amatul lu muy ji moom bee boo mu jéem a jàppale Sa Thiès rek mais bu desee sa moom dong saa amatul lu muy prouvé si làmb maa la wax loolu. loolu nga gis yow. non loolu laa gis moom. kon 1-1 na la. non kenn wax dañ koy ñam 1-1 mayaat que deuxième chance dóor que 2-1 dem suñu yoon. 2-1 bi daal. waaw 2-1 la ñuy wuti mais waxuñu waxu 1-1 moom. waaw ah, kon jeex na kon kontaan nañ ci loolu. jërëjëf ñu ngi lay sant. waaw mbokki internet yi lii lañ leen indiloon ci li nga xamante ne mooy pronostic diggante Modou Lo ak Balla Gaye di leen gërëm di leen sant di leen jox dig daje ci yeneen jotaay xibaar fii ci Saint-Louis TV jërë jëf. man Modou Lo 100 pour cent mais damaa xam ne man dama def ma leer nañ Modou Lo Balla Gaye dafay tegu ci yoon maa la wax loolu.